Mm-hmm. asalaamaaleykum. waaleykum salaam rahmatullah. Euh, auditeur Al Misbah ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar dellu si seen émission laaj ak tontu. Mm-hmm. Euh, Imaam. Mm-hmm. beneen laaj bi nga xam ne moo fi rot. Euh, kii nee na. moom jigéen ji doon muuru la. bi muy xale ba bi muy am borom kër da doon muuru. léegi nag neena bi mu sëyee. Mm. jëkkëram ni ko dafa bëgg daal mu mu mu mu réeku mhm. bi mu laajtee ay borom xam-xam. Hmm. ñu ne ko ñu ne ko euh, dagan na sa jëkkër wax moom dagan na ndax lépp loo xam ne nii lu koy bégal la rek loolu bu ko waxee rek yow loolu da ka kaa war a def. waaw léegi nag mu doon laaj moom dafa jaaxle daal. waaw. moo yooyu jaaxle dafa dajeeg ñu ñeme yàlla su dee ñooñu ay borom xam-xam lañu borom xam-xam yu ñeme yàlla ngeen yéen. salaamaaleykum wa rahmatulah parce que nuyoo woon sax xaaral ma nuyoo pare <laughs> jigéen daal bu dee yàlla dimbali na ko may ko xéewal ba muy muuru ngi def lu lu ko lislaam sant ngi def lu baax yàlla nattuwaat ko xam nga may na ko xéewal yàlla nattuwaat ko mu am jëkkëru bolli puy li naan ko mureekul aka bon na lank ba dugg boîte vocale xam kooku lim ko li ko jëkkëram sant nan la mel taal fee benn taal ba mu tàkk mu ne ko summeekul dugg ci safara si c'est la même chose summeeku nga rek mooy yóbbu na la safara te wallahi waxuma àllaaxira de yow soxna si yow laay waxal waxuma àllaaxira de waxuma ci kanamu yàlla de fii ci àddina gis nga sa jëkkër jooju quelque temps da lay takkal wujju yow gis nga boo feebaree boo feebaree mbaa sa teen bi xaw a kii nii tuuti wala nga xaw a sonn nii mu bàyyi la fi uti beneen jigéen soo deewee mu takk keneen nga rendre compte sa digganteeg sa borom bul dindi sa muuraay lankal bu la ciy bëgg na la ci bëgg parce que ci la la fekk su ko bëggul na la ba nga dem uti keneen ku mën a accepter muuru sinon da nga am moom de waaye di nga ñàkk yàlla te boo ñàkkee yàlla bis dina ñëw nga ñàkk ko moom parce que ku ñàkk yàlla doo amati dara lankal kooku du góor gu baax góor gu baax day fekk jigéen gu muuruwul mu ne ko del muuru waaye du fekk kuy muuru mu ne ko mureekul ñi nga xam ne ñoo naan nag defal lu la sa jëkkër sant xawma lu sa jëkkër bëgg jigéen buy sëy lu neex jëkkëram bu ko defee loolu dagan na loolu ay caaxaan la wala yaxilu euh, euh, xaw ma fële la taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq borom la Abdourahman nee daganul ci benn jullit ngay topp nit ah di mooy yàlla mu waxaat feneen na wala yatlubu rida al maxluqina bi suxtil xaaliq <laughs> mais loolu koy ibtidaa yi la téere laxdari bi nuy njëkk a jàng rek loolu la ci njëkk a jàngal mooy bul sàkk ngërëmu kenn jëkkër ak waajur ak doom ak rakk sëriñ ak ñépp ci yam génnewu ci kenn wala yatlubu bul sàkk ridaa al maxluuqiina ngërëmu mbindéef yi ku yàlla bind bi suxtil xaalixi ci merum yàlla sëriñ lu mu foor foor bu la digalee lu la yàlla tere lankal wayjur bu la digalee lu la yàlla tere lankal jëkkër bu la digalee lu la yàlla tere lankal ñett ñi ñooy ñi gën a foor ci doomu aadama du ma ci dolli keneen yooyu nañ ko bàyyi xel ay lu neex sa jëkkër na ko def déedéet ci kaw li neex sa jëkkër du bàkkaar waaye jëkkër ju toog ñaan jabaram del xeesal waay sa teye mu ñuul bi ngay def nii wala del sol ci tuba yi jigéen ñi di sol te mbubb yu rëy yi wala del mureeku comme ñëpp di sol yu dang waaw d'accord ci kër gi jigéen nag ci biir kër jëkkëram bu muuru loolu moom mooy dëgg waaye suy génn ci mbedd mi na muuru waaye bu xasee dugg ci kër gi te moo jëkkëram ma fa nekk ak i doomam na dindi muuraayam teg fële na nu ko neex moo xam bu solee baa moo xam bu solee sufees moo xam bu solee oo moo xam loolu moo jëkkëram la seen biir kër seen affaire la waaye nag su gan fëggee di dugg si di nuyoo day solaat yéree muuru mureeku gi pour jëkkëram la su demee ba war a génn ci mbedd mi day muuruwaat su duggee des ak jëkkëram ne dindiwaat yére su yëgee ne nit a ngi dugg étranger gan gu bokkul ci kër gi te du koc armalam du rakkam bu góor du magam bu góor du papaam day jëlaat yére yi solaat muuru door koo tijjal loolu mooy charia su ko defee yàlla na ko yàlla sàmm moom it ba saxal ko ci loolu mu nekk insha allahu taala jërëjëf Chérif Cheikh ma Tidiane yi ñu ngi lay jaajëfal jaajëfal mbokk yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah